kanu balam ya moo dem ba kanu ba xoli ta kanu ba kanu soxna say kanu maam astu jànqay garwaal matal na mboole mi dawaar jigéen ñi ron leen tey tey ngir moom baroot seeni bagaar maam astu jànqa yaayu baay kii baayu doom yaak seeni gaay moo for garab kawe médaille ngir masta def mbaaw yoon mu di juddu Barahama Ñas bilaa milaa walaa labaas xar mu yatum bi yaa ko tas bàyyi Barahama yaa daxaw su Ñas Ahmadu jogal daw na ba tooy takkal masiini fas yaa ngi jooy ngir bëgga bay sa tool du booy baay sa tool du booy ahmadu jogal taw na ba tooy takkal masiini bëgg bay sa tool du booy sa tool du booy sa tool ndax mu takkal ma ay garaat bay may ma ndigal ma jog jihaat na ma xamal nan lay doxaate ëllëg ana ban ay rapport lay wàcci haat xadri lan nga wax ñi nga xam ñu ngi seetaan yóbbalu Taïba looy wax si Ibrahim ci gàmmu Taïba gi nii. di wax ne ñu teew ñu teew di wax ne. xaaja fi qalbi kulla shaaj bin dafini mawlidu Cheikh inda Taïba ñesee seeni radiyallahu anhu di sant sama ñaari waay njuri maa leen di yàlla yàggal leen fi may leen tawfiq ak taysir ci barke waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax ne macha allah depuis ma tàmbalee zikar alhamdulilah depuis ma nekk xale la dama daan toog di déglu zikar di dugg ci néegi di zikarantu ni di zikar daal macha allah su ma génnee zikar ñu ne ma ne góorgóorlu boo zikaree macha allah yàlla maa ngi si sant Cheikh Ibrahima ma may euh, ba nga tàmbalee si kër léegi yaa ngi si gis yow fan ak fan dem si kër yan gàmm ak yan gàmm gis na gis nañ ne ñëpp wóolu nañ la ci ay daayira fii. macha allah waaw alhamdulilah depuis ma tàmbalee si moom. maa ngi si gis ay yokkute alhamdulilah parce que dafay yokk sama cofeel si Cheikh Ibrahima Niass ah, maa ngi ko si santé bu baax moom mu tax tey ñu def lii yëpp waaw damay dem daayra di zikar di dem gàmmu benn benn rek laa fay zikar moom alhamdulilah ndax mu ñëwee si sikkër ak eh, liggéey ak jaamu yàlla fi jaamu yàlla moo ànd yaa ngi si sikkër si gannaaw sikkër si lan ak lan ngay def waaw damay zikar di jàng zikar di jàng si téere bàyyi tamit bu ma paree tamit damay jàng di dem école waaye léegi wàcc naa arabe bi maa ngi yokk si anglais bi tamit. macha allah alhamdulilah kon ak jàng bi ànd gis amul benn perturbation boo xam ne dafay am si ñaari côté yëpp. waaw man moom maa ngi si yàlla bu baax parce que bi mu may yokkal xel boo xamante ne bu ma tiimee jàng sa alhamdulilah dinaa xam lan lay jàng maa ngi si di faral di génne di génne Gambie di dem Sénégal mbaa dem si yeneen gàmmo yi si yeneen dëkk yi di génne si génne Gambie. waaw alhamdulilah maa ngi dem yeneen dëkk yi comme benn yoon Sénégal dem fa gàmmu ànd naa fa ak ñoom seen ak sa waaw fii tamit alhamdulilah maa ngi dem daayra bu baax. macha rek may gàmmu benn yoon rek. nga nan nga gisee Zikar Zikar yow nan ko gisee. parce que man ci loolu laay dund man man bu ma kontaanee zikar moo may kontaan lool bu ma meree tamit zikar moo may kontaan bu ma wéetee sax bu ma defloo zikar wéet bi génn loolu maa ngi si sant Cheikh Ibrahima bu baax a baax وصحبه هم البطول غير كل عمري ما يكمل des yow yaay ngalam ta bekki niiram ak ki tawam sa kàddu neex ba mel ni lembaay yow yaay ngalam yow yaay ngalam bàyyi fu mu juddoo tey bañ a fu mu yaroo koo sa baay ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaa da yawmul xamis sa takkusaan fukk ak juróom saxrul malaam mu darajab waa xay bu naan waxal ñu kaw su foy fanaan mu di